suuf su xorom si bokk ci li nga xamante ne gàllankoor na mbay mi ci goxu wàllu yi lii lay waral ay pexe ñu daldi ko ci amal Sénégal Investment indi produit bi di Farmsal naka noonu ay jéego nag ñu amal ko ci wàllu wi comité scientifique bi amal doxub nemmeeku foofee nga xamante ni moom di ca vitrine ya ñu amal ca diwaan bu Ross Béthio madame ndoy jiite délégation bi xamle rek ni yile pexe mën naa tax ñu mën a àgg gaaw-gaaw ca li di wàllu souveraineté Pharmasal nag dafa nekk benn genre produit boo xam ne dana xeex ak xorom bi mais euh, fertilisant la boole ko aussi dafa ànda dafa amaale matière organique mu ñëwee yaakaar naa 2000 saison session 2021 testé nañ ko fii au niveau de la délégation lu tolloog 4 sites bañ ko testé itam ñu gis ni nag ay la yeween ci ñetti sites yu njëkk yi ñu gis ni en tout cas ci euh, parcelles yañ ko def toogoon nañ ay at gàncax mënu fa woon sax bañ ko defee ceeb sax na fa. ñu génnee fa ceeb benn parcelle daal moo ci amoon jafe-jafe te boobu niveau de salinité am c' était au niveau du 3 PRD dafa xawoon élevé de telle sorte que moom moo tax résultat bi ñu fa amoon c' était pas trop satisfaisant donc bi ñu sukkandikoo ci loolu def ci rapport génne wane ni kat Pharmasalte ay la yeween am na fu xorom di toll mën na xeex ak moom. ginnaaw nag ay test yu ñu jëkkoon amal bi produit wane nag xarañte gi nga xamante ni nekk na ci ci wàllu rendement. Mansour Cissé dellu si ci wàllu wi. bi ñu defee restitution yi gis na ni rendement yi évolué woon na de de trente tonnes. le rapport est avec moi mën naa ko partager ku parce que am zone boo xam ne fa 3 tonnes 3 tonnes 500 mais bi ñu defee kii bi évaluation bi dem nañ 6 tonnes 300 donc mu nekk loo xam ne ni am na solo te béykat bi wax ni jamono yooyu moom da daan béy ba du am rendement ou bien ceeb bi du foom ou bien mu am yeneen jafe-jafe kon farmasal bi nekk na loo ni utiliser nañ ko ci délégation bi utiliser ko ci ay sites ñoo xam ne sax béykat sax mën na leen a interviewer ñoom ñu wax ñoom ko mu nekk loo xam ne nag tey ji dana ñëwoon fii di xool Seck ni mu defee ay vitrine variétale de mu ni mu defee ay vitrine di utiliser produit produit pharmasal bi fi may wax rek barki dem bi ma demee Dagana ci tomate bi rek am na ñaari producteurs yu ma wax ni ma dañoo bëgg jënd produit pharmasal bi ma leen mettre en contact ak Seck dafa naa ñoom ñëw nañ ba jënd si pour war ne rek ni ñëpp xam nañ ni produit bi mais li ñu wax rek mooy xamuñu ban dose te comme mi ngi ñi ngi gëstu loolu incha allahu taala am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee mbay mi dina am coppite bu baax a baax te dinañ lutter contre la salinité. bi les produits nag am yeneen ngëneel jëm nag ci wàllu engrais. beneen avantage bi ci nekk mooy moom dafa àndaaleeg engrais te sax dalay éviter loo premier apportu urée. donc loolu nekk benn ngëneel léegi nag ben jafe-jafe biñ ci gisoon mooy maanaam euh, difficulté d'application bi donc yaakaar naa ci noonu la ñu delluwaat ñoom ci lañ delluwaat moom mooy euh, Sénégal Investment ñoom ñu jàngataat produit bi fortifier ko renforcer ko ba léegi au lieu de deux applications benn application moom ngay def donc yaakaar naa looloo sabab sunu tànk yi fay parce que fii moom dafi def ay vitrine vitrine pour ñu ñëw xool si waat produit bi mais ak yeneen produit yoo xam ni sax mu ngi ko fiy testé ci wàllu maraîchage bi. lii nag doon ngëneel loo xamante ne acteurs yi yëngatu ci wàllu mbay mi yàgg nañ koy xaar tax DRDR bu Ndar nag xam la rek ni gunge moom dinañ ko amal jëm ci partenaire bi ngir produit bi ngëneelam ñu mën koo jëriñoo. partenaire bi ñun on est toujours disponible pour accompagner ko ci lépp tout le long du processus ñu ngi ci déjà lii rek benn étape la ci processus bi. donc on est disponible pour accompagner ko parce que li mu indi daf ñu arrangé ñun aussi dinañ ci def lépp li nga xamante ni moo nekk suñu pouvoir pour que li nga xamante ni moom la ñuy séntu muy sécurité alimentaire bi te ñëpp wax ko ñu mun ci jot ba pare suñu ressources yi muy suuf bi muy ndox bi mu bañ am benn problème. ISRA series kenn ku ci nekk ca wàllam joxe gis-gisam ci tolluwaayu produit bi. naka noonee baykat ya ci seen bopp ñoom xam xamle rek nii lii lañ cay soxlo moom moo di wàllu organisation bi nga xamante ni dina war ci wàllu wii. non effectivement parce que fin le temps presse et puis am na yu bëri yu ñu bëgg yu ñu soxla si surtout mbay mi côté ceeb bi man ko waree atteindre autosuffisance yàgg na wala am souveraineté alimentaire yàgg na donc yooyu yëpp aussi je crois que ni comme li nga wax le temps presse te incha allah rabbi bu nu amee information yooyu rek suñu loxo dinañ ci def li war pour mën a xool comment faire. xam nga bu amul euh, dara du sotti te itamit dégg nañ ci waxu euh, directrice madame Ndoye ñu mu wax ni xam nga baykat bi moom des fois mën na bare xaalis bay dem jëndalu ëpp. mbaa mu ñàkk xaalis bu mu jëndal tuuti mais il suffit ñu am benn euh, document bu leer bu wane ni liggéey bii nuy defee lii la laaj ci engrais lii la laaj ci traitement donc kon mën na am dootul suñu xaalis dootul yàqu parce que duñuy jënd exactement loolu nga xam ne si moom la plante bi soxla. lii nag di ab jéego bu am solo jëm ci wàllu politique de souveraineté alimentaire. bile les produits yi nga xamante ne taxawaayam daf ko wane jëm ci wàllu naka la ñuy def ngir xeex suuf su xorom sosee loolu yi nag mën a tax rek lépp loo xamante ne suuf la suñu yàgg di bandone ñu mën caa jot euh, waaye ca weneen wàllu wa wàllu engrais yooyu yëpp rek mën a wàññeeku ngir nag baykat bi lépp rek lu mu daan dund ci jafe-jafe waaye nag ci ay dépense mën a wàññeeku ba tax nag souveraineté alimentaire ñu mën caa gaaw a àgg